mbokki jullit yi gannaaw ba nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam bi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama di baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla na nu yàlla boole jëkkal dellu di ndokkeel it jullit yépp ci tàggatoo gi nga xam ne ñi koy tàggatoo ak fukk ak juróom-ñett ci safar yaari mbir aju ci yoo xam ne tàmbali naa dal ñi dëkk ci dëkk bi te doon dalal gan muy ñub ñub xol bu xaw a mel ni aw naqar ba te dëkk mooy ñi nga xam ne dañ doon ñëw di wuy si ci woote bi te yàlla dogal ak si wuñ ak bakkan yàlla na leen dal yoon dañuy dugg ci ayat suñu borom bi muy wax ne wa man yuhaajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wa saa wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu almawtu faqad waqaa ajruhu ala allah yàlla na leen yàlla boole ca ñooñ mooy ku jóg di wuy ji fu ñu wooteel yàlla déglu waxi suñu borom ji muy wax ne yaa ayuha alladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuxyikum istijaaba ak ijaaba du benn istijaaba mooy tendeefal bëgg ñu woola nga wuy ji ba ñuy wuy si nag yàlla dogal lim dogal ci ñoom yàlla na leen yàlla yërëm te mooy may seen njaboot gën leen jag gën a jege ñun ñëpp suñu njaboot lañ xolum muñ seen dem nga daal demuñ ci neen xaaju te tolloo ak doon wuy ji leneen ba loola fekk ko ca te nag kuy bañ mu fekk ko ci mbir bu mu ca nekk lu ne mën naa fekk nit fu nekk mën na koo fekk ci lu nekk buy ñëw nag yàlla nu fekk ci li neex suñu borom benn boobu mooy ñuggu-ñuggu xol gi dal ñëpp ñaareel bi it mooy tàggoo gi nga xam ne nit ñi tàmbali nañ koo tàggoo di delluwaat ñii dellu yëpp itam yàlla leen yàlla delloo ci jàmm ak salaam jaamu yàlla yi ñu fi taxawee yëpp it yàlla na ko yàlla nangu bu ñu waxee ak jaamu yàlla nag xel yëpp day dem ci julli woor jàng alxuraan zikr ak yeneen yi nga xam ne yëpp njariñam du génn kenn ki ko doon def lu wér la loolu moom mooy cosaan ci jaamu yàlla mooy ponk yi dëgg dëgg dëgg dëgg waaye nag du tee nit mën a jaamu yàlla ci jaamu yàlla jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi nag mooy jaamu yàlla goo xam ne njariñam keneen da koy daal di tàmbalee gis léegi laata yàlla di fay boroom jaamu yàlla gi ko doon jaamu yàlla loolu nag bu ñu demee ci alxuraan danañ ci fekk alxuraan xam ko te yooyu yëpp bu ca nekk nit ñi jëfe nañ ko ci biir woote bi fan yi yëpp ba ni sëriñ bi yeewee nit ñi tey ji ci yoor yoor muy fi alxuraan di waxe ne aw yiw amul fenn ñu ne ko déet xanaa fenn fenn fenn jooju jubluwoo ci fépp rek mu ne xanaa fi nga xam ne dañu faa woote nit ñi wuy ji fa te ku fa dem da nga fa jokk ak bokk da nga fa joxe aw ñam da nga fa wax lu baax da nga fa seeti koo gëjoon a gis da nga fa defare ñoo xam ne seen diggante neexutoon nee na yii yëpp ñu lim ku ci def benn waxaale wuñ mu def yëpp te jublu ca payug suñu borom kese kese dana ca am lu kawe njortam yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla defal ñëpp jariñ nit ñi nag bind la boo xam ne jàng nañ ko ci màggal gi waaye bu mu fi yam nit def na ci lu baax lu nekk jikko yi nga xam ne moom la soxna Khadija waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dalale ko xelam xelam ba mu xëyee xëy gis ndaw ndawul suñu borom te mosu koo gis ak nit jàpp ko mu mel ni ku xaw a jommi def ko ab liw muy lox ba agsi ci kër gi ba muy dalal am xelam da ko ne yow de yàlla du la teg gàcce mukk te it dara mun la jommal ba yóbbu sam xel ndax yow kat waxtu dox ak bokk kenn mënu la ca wax te la ngay wax lépp li dëgg kenn mënu la ca waaye mën a dékku ñëppit kenn du la ca dab waaye ganale gan ba xelam se ba xelam dalit xolom sedd it kenn du la ca man kon yooyu nekk bu ci nekk ab tomb la boo xam ne jib na ba tey ci màggal gi tudd naa bokk jokku bokk wax ba ab diggante jag waaye ganale gan ba xolam sedd ci lu dagan mu mel ne kon xët bi nga xam ne ci lañu doon jàng bu dee téere la màggal gi màggal gi màggal gi moom xët woowa dañ koy daal di wëlbati jëm ci leneen dem googu mu dem nag muy dem danañu yóbbaale ni gan gu fi jóge di dem mën a doon suñu lay bu ëllëgee wala mu layoo ak ñun bu ëllëgee lana aw alayna lu ñu doone suñu lay yàlla seere ne lañ ko doon def lépp yàllaa taxoon te lépp lu baax la su boobaa danañ ca jaar jéggiwaat jé jéegu bu sori dem fu soree sori waaye nag mën naa doon aw lay suñu nit kenn ku nekk mën naa xam lam ca def am na ñoo xam ne ñëw na ba jàll yooyu ma wax duxuñ ca leen fañ toog lañ toog di def la ñuy def ba maag bi jàll yàlla nu yàlla musal ca loola yàlla ne yàlla wàññi nag moo tax jariñ nit ñi jàng nañ ko ci màggal gi la ca gën a yomb rek mooy ku amut fu mu dalal nit ñi di leen ganale it di leen taral ñàkkut moos nit laaj ko yoonu kër diw mu wan ko ko wala barab sàngam mu wan ko ko loolu it yàlla da koy bind tar dara yàlla du neex loolu it nañ ko jàng yóbbaale ko ba la ñuy am ëllëg ki si birit lu mu néew néew ñu nangu ko bokk ak nit ñi fekk ñi ngi ko jàngate ci màggal gi waaye dina laaj barab nga ne ko nga laaj ko la nga koy laaj mu wax ba ne xaaw nga ne ko demal laaj ñële ba xam loolu it nañ jànge ci màggal gi daal fooy laaj te barab sàngam nga ne nañ dem ma wan la ko ba àgg muy amal nit ñi njariñ moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan wi mu njëkk a waxtaan ak waa Madina ñam fa fekk ak ñam àndaloon dem fa ña ko fa fekk si ñépp la ca gën a fës mooy fexe ba amal nit ñi njariñ ndax ma ngi ko tàmbalee ci ku ngeen rombooti na ngeen ko nuyu su ngeen toggatee na ngeen yàkkale su ngeen munta yàkkale ca la ngeen di togg it na ngeen dolli ñeex ma ba ku xet ga xeeñ bu mu ko waat waaye su ngeen ko manee su nit ñi ne basin yàlla tàmbalee tëdd di nelaw yéen lu ngeen man ngeen julli ko te yàlla rek tax su ngeen ko defee da ngeen tàbbi aljanna yàlla noonu ci yàlla boole moo tax képp koo xam ne doon nga dox ci aajo yi nit ñi lu néew néew ci biir màggal gi na nga ko def bind boo xam ne saa su nekk da nga koy fàttali ko màggal gi saa bu lu mel noonu teewee dox ak bokk joxe aw ñam lu mu néew néew su boobaa man saa rafet njort ci ne su ci sam xel jógut te nga tekki sa tànk ba fas yéene màggal gi dellusiwaatee nga weesu fa nga toll woon day mel ne ubbil nga sa bopp yoonu dem aljanna ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam boole na ko ci yim lim ne ku ko def dem aljanna laaj na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li gënal yàlla ci nit ñi lan la nit def defandoo ko moroomam yàlla tànn ko ca ne ko yaa ma ci gënal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku bëgg a gënal yàlla ci jaamam ñi del fexe bay nekk ki ëppal njariñ yàlla ci jaamam dal ne li gën ci li nit def nag yàlla tànn ko ca ne li nga def yow mu mu gënal ci li nit ñi def mooy ngay dalal xelu jullit bi waaye di ko jaarale nag ci anamuk yoon bañ ne ko rek lépp baax na mu jaaxaan waaye danga koy won yoonu fi muy jaar ba mën a baax wala boog mu ñëw wax la njàqareem lu metti ne sallallahu alayhi wa sallam ñeme woon ci soxna Khadija nga ne ko loolu daal amul solo soo xoolee ba xam ne lu am solo la nga ne ko du yow la du yow dong la njëkk a dal lu mel ne coono yi nga xam ne ñi doon ñëw dañ koy jànkoonteel dañ ko doon jànkoonteel ci màggal gi nañ xam ne bis bu ñu wuyu si woon bis la boo xam ne coono moo ko lal coono kese kese boo xam ne am na fanweeri at yu teg yoo xam ne bis bu set bu yeesut bisub démb ba it dana mel ni moom bu ko gënte bu ko rawute dana mel ni moom waaye booba nag yàlla rek a taxoon mu di ko jéem a dékku di ko muñ ba yàlla fayee ko lim ko ci tàmbalee faya dañ naan fay na ko waaye fayeeku ko lu ci nit ñi mën a gis tuuti la ci li ko yàlla wan mi ngi mel ni rek loo xam ne dañu dañoo ubbi li ndab li ubbi rek muy xeeñ moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon xëy ànd ak nit ci yitteem ba jant ba sox yitte ja faju moo ma gënal i'tikaaf ci sama jàkk ji weeru lëmm loolu nag day mel ne sëriñ bi roy na ko ca lool ndax jaamu yàlla ci sa jëm bopp yàlla fay la baax na lool waaye nii mu def nag moo gën fuuf lu baax moom foo ko fekk bu fa yàggee rek lu gën da ko fa fekkul waaye su ko fa lu gën fekkee mu toxoo fa ba mu demee ba nga xam ne dog na aw yoon ba mën a mucc mën a jariñu daa geesu gis mbooloo mu topp ci ginnaawam mu ne sama jariñu kese kese amul njariñ waaye naa jéem a jariñ ñii ma seen ak ña mooy ñay ñëw ëllëg daal di dog yoon woo xam ne wii lu ko dal ca la ko dale bokk ci jamono ji dafa xew lool njariñ loo fekke moom nag bu ko defoon fii yëf yi agsi du fi agsi doonte yàlla dogaloon na ko ba noppi waaye fa mu ko jaar la su ko fa jaalee wutul mën naa bañ agsi ni mu agsee bokk yi fa mu tàmbalee seetlu bi seetlu ci ne moom moom kenn see mu jariñu amul njariñ ba mu koy def boobu amagutoon baat amagutoon kàddu sañagutoon a sàkk yoon wu muy jaar waaye dafa tàmbale woon ci fa mu mënoon la ca jiitoon mooy loo xamut fu mu bàyyi ko nga moytu ko doo laal loo moomut doo ko ab doo ko sàkk doo ko jaar sàkk waxuma laa di ko fab te borom joxu la ko bokk yi benn bis mag ñëw na seet si Mamoor Anta Sali booba mi ngi bataar bi mu ñëwee seet si ko ñu bëgg a bind dara mag ma ne ko Ahmadu mu ne ko naam mu ne ko jox ma ci bant yooyu benn bant sàkket bi mu xool xool xam ne sàkket bi du aw sàkketam mu ne ñokket génn kër gi tuuti dem ci àll bi booba àll yomb na boo génn kër gi dugg nga ci àll bi fekk banti xat yoo xam ne yàllaa ko fa def ni mu defee garab yépp waaye garab yi nga xam ne dañ ko lakk-lakkal dañ naan diw ko moom waaye yi lakk-lakkalul moom da ngeen di jaar sàkk walladi jannatin maarusatin wa gayri maarusat mu dale see dagg bant yu baax ñëw yët ko ba mu bindee la muy bind ba noppi dane Mamoor lu ma la waxoon mu ne ko lu ma la waxoon mu ne ko ak sàmmam da àgg na ci jox ma ci bant yooyu benn du ay bantam doonte ndigal la da ko ni ñu ko dem wuti bant yoo xam ne yàlla rek ko moom tegal ko fa ñëpp ñaareel ba ba ñuy denc Mamour Ant yóbbu Mamour Ant Sali deqale di ko jëlee Mbàkke Kajoor nit nee na kaay war fas wii kenn ci mbokk yi mu xool xool xamut waa ji ci yar ay fas xamu ko ci teefenk kon sàll yi fu mu ko war a jële mu ne ko jéggal ma doxam a gënal foofu la man manam tolloo ba ku ko ca roy mën nga gën ñu bat bañ ñëwee ba agsi it la ca xew-xew kaay ñu nuyoo la laak buur mu toog la fa peggam mu ne rus na ko rus na ko jomb na ko rus na ko nit ñi di ko gis waaye jomb na ko digganteem ak suñu borom ndax yàlla rek mooy buur baatu buur bi ñu ko tudd moo ko neexul bu ñuy wooye nit rawati nag njariñ loo xam ne daf koy war a yaakaar ca la binde woon bindam mu siiw moom yi xaloolu yarka waaye wax na ca woo xam ne wii jamono soxla na ko war nañ koy wax ka waxaat saa su nekk bokk yi ren màggal gi ñànk mag manqué na ndox lool baatu manque ngay mën a jëfandikoo ñu xam ko ndox mi daal fës rek waaye boo demee ñeneen ñi liggéey it manqué leen nañ lu bari loolu nag sëñ bi rek le woon na ko rek le waxe ni jamono la maanaam indiwoon na ci pexe ndax nee na woon an naa ufawwidu axwaali liman ajazu an xaali anfusihim ajsal masakini man na mu fabe sama mbir di ko wér ci kuy mën ak a tële du ma fab sama mbir mukk di ko wér ci kuy mën ak a tële misaal nañ ko saa su nekk bokk yi am na ci réew mi koo xam ne mën na lu mën na lu bari bokk mën naa la nit lu bari mën naa digle ñu taral nit mën naa digle ñu teddadil nit waaye ni suuti muy wër naan dimbal leen ma ci nangam loolu sëriñ bi gisoon na ko kon boog yoon bañ jaaroon ba agsi fii war nañ saa su nekk ñuy fàttali sëriñ bi nit ñi ci li nga xam ne nit mën na koo roy ci moom mel na sukkandiku ci sa bopp loo te nit ki kat lu mu mën yàlla du ko ci defal dara yàlla lu nit man du ko ci defal lenn yàlla mën naa taw mu sax mën naa mën naa taw waaye yàlla du wàcc mukk di ji di jëmbat muy sax nit mooy ji bàyyi ko yàlla ba ba muy ñor bu ñoree it njari njariñoo ko ci ay yoxam lay jaare yàlla jàppale ko ci kon boog nañu moytu toog di néeg rek lu war a ñëw jóge feneen ñu di ko yaakaar ci keneen ku dul yàlla loolu sëñ bi wane woon na ko bu yàgg booba dañuy soog a denc Mamadou Anta Sylla képp bay soog a noppi bis boobee nag lu ko dal ca la ko dale mooy mënoon naa dem moom képp waaye dana rus naa dem te yóbbu woolewul mbooloo mu bari te la tàmbali am ay jafe-jafe xat-xat gi di ko dal ba mu tuxoo fa ñëw Mbàkke Bawol ba sañ ci Daru Salaam ba sañ ci Tuubaa la ko taxee jóge Touba dem Mbàkke bari nag mooy barab bi daa tàmbale woon a xumb adduna tàmbalee rax si ndax ku dégg mbokk ma nga Touba lam doon wéet wéet boo ko dendaleeg tey téewul ña naa dem seeti ba xam seeti moom taxutoon sëñ bi di dajale mbooloo mi moo tax mu ne seefeet dem Mbàkke bari sanc fa bala ko fa fekk fekk ko fa bañ jàpp ko ba tey ji kon boog bis la boo xam ne coono bu ca waay daj na fàttali ko keroog bañ koy jël moom kenn bisub yor yor këram tas dëkk ba gent 1895 la dëkk ba gentoon ba 1964 kenn nekkatu fa woon njaboot gi toltalaan toltalaan nañ fu nekk jëm fu ne ndax moom li tàmbalee fii yam fii ñoru ko woon li li ko ñoroon mooy fu mu defaree nit ñi rek fu mu leen defaree baax na ñam batale woon mbooloo mi it maam Cerno ñoom ak sëñ Abdourahmane ak sëñ Mbàkke Buso ñoom ak ña leen doon jàppale ne daw leen na woon fu ngeen mën a defare fu ngeen mën a dëkk rek ak ak njaboot gi baax na waaye xamutul fu mu jëm xamutul lu mu def xamutul lu ñu koy doye waaye daa daa xamoon fam fa muy teg tànkam fas yi ne jariñ jariñ mbooloo mbooloo mi nag ni ñu ko mën a jariñe mooy kenn ku ci nekk fexe ba jàppale ko ci sa bopp kilifa gu mag ñëw na fi fekk ko darul mën naan mooy bi mu jógee Gabon te dematugul Mauritanie ne ko Mbàkke yan bi diis na lool de mbokk mu ko jege la mu ne ko lu la ko xamal mu ne ko la mbott waxoon bis laa ko xamee mu ne ko lu ñu wax ne moom la mbott waxoon moom nanguwut kaf nanguwut ay caaxaan lu ñu wax ne moom la mbott waxoon dëggalut ne mbott day wax mu ne ko da ñu ne daa séen ku yanu ñetti naamaan mooy as saako bu buy bëgg a mat juróom-ñaar fukki kilo kenn yanu ca ñetti saako am na ñu ko yàlla may am na ponkal yoo xam ne ku mat téeméeri kilo juróom fukk mën naa yet mën naa yenu ñaari mën naa yenu ba mat juróom-ñaar fukki kilo ba ba ba mu ko yanoo kooka ne ko mbott daa séen ku ko yanu mu ne lee day ak a diis ñu ne ko yow da ngaa mas a yanu mu ne musuma yanu waaye ku ko yanu woon moo ñu xañoon maam ndax moo joge woon suñu maam ñàkk sëriñ bi ne ko ana loo ma ci jàppale ana loo li ci sa xalaat nag ci yan bi mu ne ko jàppale la ci mu ne ko noo ma ci jàppale mu ne ko xanaa bu laajee bakkan ma joxe ko bu laajee alal ma joxe mu ne ko laajuma laajuma la ci lenn laajuma la bakkan laajuma la alal fexeel yow ba jàppale ma ci sa bopp rek fexeel ba jub xocc rek kon boobu loolu ñëpp la ko wax bataaxal boobu ñëpp ko war a jot ñu xam ne bis la bopp wuyu si woon nañ ko waaye fàttaliku kese la fàttaliku jom fàttaliku ngor as ngor su xasee ba wax ba noppi moomutul boppam al xur xurul maa lam yatakallam moo ne woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg a bokk ci sa gaay yi mu ne ko lii ak laa moo ca tax a bopp bokk mu engagé nangu fas yéene bokk moo tax bis ba ñu ko jàppee ba bis bi ñu ko indee Touba te ku wax du la tontu lam doon wax lay wax lam doon def lay def kon boog suñu sag ëllëg ak sibir bis bu safar di layoo ak ñun daa mat a bàyyi xel bis ba ñuy def ci safar aw lay itam daa mat a bàyyi xel waaye bis ba sëriñ bi layoo ak ñun it ak ba ñuy lay ba ñuy doon sëriñ bi ba sëriñ bi doon suñu lay itam daa mat a bàyyi xel bi ñu ko jëlee njaram di ko indi Tuubaa mag ñooñu dañoom dundoon nañ waxi sëriñ bi akum jàngaleem lu jamono xat xat xat duñ ko fàtte dañu ko indi fii fi Touba fii ñu ko denc tëral ko waajal ko jullee ko suñ mën leen jóg daga ne mi fekke moo ko bind ci téere bi ñuy wax irwa un nadim waaye ba ñu dencee ba nga xam ne def jal bi moo ci des julli suba daa jot am ko noddu ñu ne fa ñu ne ko fa ñukk dem julli ci ba ñu sëlmalee maam Cerno suñu Mbàkke Buso lii da la waxoon newoon na de lu ngeen mën a nekk bu waxtu julli da jotee na ngeen ko bàyyi ku ne dégg na ba tey ay sàkket yum teppilu te fekk daa romb ña ko doon sàkket rombaat leen ni leen lu leen tee woon a julli ngeen ñëw liggéey bi la ñuy àggale mooy teppi leen fa ngeen yemoon te dem julli ji te ñëw door a àggale kenn du wut ngërëmul kenn te fekk nga ngërëmul suñu borom nekk nee waaye am na kum daan gis ci sàppe si it saa bu sëlmalee asalaamaaleykum janoo ko moom ne anam ñu ne ko daa wéré di mu dem seeti ko kooku ne ñokket mu wàññi ko ne ko damaa defoon bu mu ñëwee du ma fekk ak roo neel coow dem julli ji kon boog di waxtaane li ko yàlla may baax na lool waaye fexe ba am ca mayam yooyee moo ëpp solo fuuf te ay caaxaan mayewu ci nag ay caaxaan kese kese taxu caa am ndax ay caaxaan mayu ko ko bakkanam la jëloon teg ak njabootam lu ko ci fekk jaral ko ko yóbbu nañ ko foo xam ne si moom képp moo fa nekk fi mu toll nii kuñ la mën a wax suy tukki dañ koy aar di ko defal lu nekk ba ba muy ñibbisi waaye moom sañis naa laaj ba xam kan moo ko daa fóotal boppam ku ko daa toggal boppam lam daan ama ko si ñëw di ko jënd ay téere fu mu koy jële ay xalimaaki daa xalima sax yomb naa am ndax bant yàlla yaa ngi fi daa itam manees naa soos daa waaye bokk yi lal ba mu daan dalloo ko si néew ak néeg sam daan nekk ci àll bi ak lam daan jëfandikoo bu kenn daawut jëfandiku nag ndax su fekkee juróom-ñaari at la am yoo xam ne toggut yëkkut kenn joxu ko mu lekk dañuy taxaw nekk ko du ko ñuy roy su boobaa du doon du doon nit ñi nun waaye nit ki lañ ñu roy la yooyu yëpp kenn daawu ko def moo ko daa defal boppam kon boog ab sagal ko sagal ko dëgg dëgg dëgg dëgg wane ne ci jabootam laa mooy nga teg tànk fam ko tegoon di mépp boog donte moo la gën a gudd ay jéego gën la ko gaawle waaye ku la gis moom na xam ne ci jabootam nga bokk bu dee jaam yàlla bu la ci kenn man bu dee aw fit bu la ci bu la ko kenn ëppale ci loo war a amu fit su dee jom bu kenn daw fekk daa topp ci sa ginnaaw ngay daw ne moom déedéet yooyu ay jikko la ak i melokaan yoo xam ne war na koo jàng ci bis bi donte nag muur nañ ko ak lekk ak naan ba kenn te lu ko waxtaane daanaka ndax nekk ci xol li xol yi ñuy xool ak dagg yi ñuy dagg waaye waroom xel yi moom nañ xam ne safar jàll na weeru bis bisu safar moom jàll na déwén lay del si waat yàlla nañu ko fekke boroom xam-xam yëpp nag juboo nañ ci ne ki yow dëgg dëgg dëgg mooy koo xam ne foo ko fekk ma ngay wut lu baax te nam ko war a wuute te di ko seeral yàlla kese kese kese te jàpp ne saa su nekk noyyi gii muy noyyi genn noyyi dañu teg bokk yi li tax ñu di ko wooye sëñ bu mag bi du da ëppi at ci mag duunut ne leen ëpp alal duunut ne itam daa am ñu ko meññ ñoo xam ne meññul kenn waaye pas-pas ba moo tax muy ñuy wax sëñ bu mag bi ndax mas naa woolu am Moussa ne woo leen ma Moussa mu mag ñu dem indi Moussa mi nga xam ne moo ëppale ay at mu ne waxuma Moussa mii de ñu dem indi meneen Moussa ma ne ko kii di lañ fa xam meneen Moussa mu ne kii lay wax ndax kii moom la alxuraan nekk ci dënnam te saa su ma geesoo ci jàkka ji gis ko kon boog bokk yi ko bëgg a dem day fas yéene dem am yéene ji yéene ji man nit ñi mën nañ koo xam ci waajtaay wi ba nag mu dem taxaw ci yoon wa wut paas bu fa taxawee ba ba fas yéene dem te dem dong la bëgg oto buy laaj paas mën na ko fa romb yóbbu ko mu fay waaye keneen ko xamit te oto mu fees mën na ko fa romb yóbbaale ko waaye na fekk mu ne sa yoon wa wax nañ ne suñ mut la mbakk yow mën a aw nit romb nag nit diggante sookoon ak kaarang mu ne ci digg àll bi suñ mut la ne ta dellul gannaaw jël ko ba xam day demam net yàlla dogal muy ab taalibe kooko wàcc santut xanaa naan nii rek lay demee bu ëllëgee de xam naa ne fi nga ñu fekk yóbbu ñu mu ne ko waaw na fekk ngeen ne sa yoon wa rek ne noonu moom suñ mot la am na ku nekk sama kër ga noppi dama bëgg nga seet si ko mu ñëw xool ko mu ne ko bu lakk amoon it lii mooy déclenché wu automatiquement fay lakk bi mu ne ko daa mel ne sa kër tëna sa wara de mu ne ko waaw mu ne ko yow mbaa yow fexe nga ba të sa wara suñu bilaat waxoon na ko El Hadj Jili Mbay amaanatul alim moom mooy lu ci ne da nga koy wax nam xewoon rek ala ji da ko woon këram gii fekk mu doon ko gane mu yéem ko lool ne ko wax dëgg yàlla bu fekkee ne doon am kër de mën a am nga kër daal di fàttali li sëñ boo sëñ mag bi waxoon maam Cheikh Anta dafa laa jeexale xam ne adduna moom du kër maam Cheikh Anta daa jënd kër fa xombal kër goo xam ne étage la boobu dénk ñu teg tiwil ci kaw muy gaaral sëñ bi bëgg sëriñ bi dem fa léemul ko ko sëriñ bi ne ko loo jënd mu ne kër mu ne ko Cheikh balaa kenn am kër da ngay gental yetti kër da ngay génn sa biirum day sànc adduna dootoo fa dellu mukk nekk adduna ba yàgg nga gental ko faatu dugg bar sax te dootoo dellu si adduna mukk bis bu yàlla wooyee ñépp nag yowmal baas yowmal nusuur yowma diin yowma yowma yow ci alquran nga gental bar sax te dootoo fa dellu mukk yàlla door laa wan sa këru bopp ga nga xam ne fa ngay dëkk ba faw yàlla na nu yàlla dimbali bañ dem sa kër gënu gënal bokk yi kër googu nag caaxaan demu ca te ku ànd ak sëriñ bi it lii tax nga am ci li sëriñ bi yore leeraloon na ko fa jolof sëriñ fa lu mbakk moo ko nettali nee na da leen a woo ay dooma ma nga ca ay jarbaata ma nga ca ak rakkam maam Thierno sëñ ma roqee ab jarbaatam la sëñ Modou Moussa waa suñu fal ay doomam lañ mu ne lii fi nekk ñu jur ma wala jural ma la du ci tax a am kon may sëñ bi ñuy waxtaane lépp dëgg la ginnaaw ne yàlla ko may rek dëgg la yàlla jeexalu dara waaye da leen wax ni ñuy def ba am ci dana leen du ñu jur ma ma jur la wala nga ñu jural ma la du tax a am li ci tax a am mooy lii ak laa kenn ku dem ci borom xam-xam mu dëkkal mën na ko wala mu laaj ko sëriñam moo tax nee na moom suñu fal ba mu demee ba suñ bi demee njaaree mu bind eskay jox ko mooy baytam yu siiw yaa ayyuha cheikhu nafis al murtaja yaa fatihan ma kaana xabl murtaja biatu bu nu watiya bil irada ñureel gi jaay naa ko jënde ko ak taalibe ak taalibe mooy li sëriñ bi wax ne mooy ak taalibe du loo xam ne nit koy xalaat ci xelam wala mu dalam xelam wala diwoom koy def rek kese kese mu ne ko su ma ko jaayee ba mu jar njëg gi joxawaat naa ko addee te bu ma ko joxaat barkeel soxlaatuma ko féete féete woo ko ginnaaw nag suñ tuboo jur la des koy jaay lañ koy jaayee moom xam naa ne lu cher la moo tax bokk yëf yi du ay caaxaan caaxaan bokku ci dara caaxaan bokku ci mbokkum suñ mëndumbe nee na waxi suñ tubaa fu mu neexee du moom fu mu guddee itam di law lawee dem du moom day gàtt tënku lool te lépp di dëgg nee na su ko xëyee wax ak suba doo doo yendoo loo xam ci bëccëg su dee ak ngoon la doon naaw ci guddi gi kon bokk bokk yi dañ xam ki ñu àndal comme doon ak ki ñuy wuy ji comme doon suñ muntaxaa day wax ba tàyyi na bi mu fi nekkee ak ba ni mu fi jógee lépp ci lu neex suñu borom la nekk ak ngërëm luy wut ngërëmul suñu borom rek te bu dee si wootum fi mu ne nii dana gën a dolli laxasaayam kon bokk rawatina koo xam ne kii defu ko dara lu may gis yëf yi mu ne gàññ nga defee lépp sotti lekk doo nga tax moo ci des loolu ëllëg yuuxu mën naa foog jib fi ñu ko dul foog yàlla ñu ci yàlla musal yàlla ñu ko fekk ay ati at te yàlla yërëmal ñu suñuy waay dawlu gannaaw bu ñu ko jaalee suñu bokk jaal ko mbokk jullit yëpp di sant ñëpp ti di ñaan yàlla ba mu doon suñu mujj màggal te lañ ci def mu néew mu bari it yàlla bu mu neen yaxfirullahu lana wa lakum wa lisaa'iril muslimin